tuuma boo ko tegee ci nit rek pour mu dindi ko wala mu day jafe te day metti wàll bi mu fi ñëwee démb c'était un homme très blessé ñu ñaan baayam ñaan ko moom pour mu ñaan avocat yi ñu teg lii ci suuf ndax Sénégal benn bopp la ñu xam ko moom ci defar traversé na ay étapes yu metti de sa vie doomam it noonu mais moom moo woy ne siiw bu jàmmi borom te dëgg la àddina boo fi nekkee dina am ñu la bugg dina am ñu la bañ dina am ay ndëgg sërëxal dina am ay wax yu ñaaw dina am ay wax yu jafe ñu ne nag ñun imaam waruñu seetaan lii di yàqu te it tombe na ci tey tax benn imaam la ndax dañ ko doon defal ay jàmbur sama carte de visite bi mu ko gis bi ma ko jox gis na ne ñu ngi dox ci ay sëy yu yàqu ñu ngi dox ci ay miraas yu yàqu wala ay miraas yu jafe ñu ngi dof ci ay doomu baay ak i doomu ndey ñu juboo nag ñu nekk ci leneen pour ñu mën a juboo kon ñun suñu mission lii def ci bokk ñun ay imam du fii rek ci lu nekk li ñuy dugg pour di def des médiation bii nag na dafa war fës moo tax mu fës ne nañ ko doon dox dans la discrétion ba mu jeex mais lu siiw la tamit lu mënul ñàkk nekk ñun imam yi ñu waxtaan rafet lu ñëw ñaan ko moom mii baayam di kilifa njaboot gi li mu def ci Sénégal yëpp mu wax ko sànq li mu nekk it yëpp ci kanamu Sénégal ñu wax ko ñëpp dégg ko di ñëpp reconnaître ko muy wax ko tu dëgg it ñu ne ko daal dañu bëgg nga jël plainte bi retiré ko teg ko ci suuf ndax jàmm am ci réew mi te yow réew mi jàmm nga ko yéene li koy wane démb xool yëpp sedd nañu xool yëpp féex nañu ñëpp tëb nañu ñëpp daan nañu mu tombeek lii ñun daal ñu seetaan match bi duñ ne suñu yoon nekku ci wànne tamit li ñu itteeloon privé nañ leen ko pour ñu mun ci am résultat mu nangul ko partiellement ba wax ne dina wax ak avocat yi di ci des bariwul dañ ko wax presse tamit ñëpp yëg ko ndax lii dafa wër Sénégal ba ñëpp xam ko kon nag imaam yi buñ ñu koy dox tamit war nañ ko dox pour mu am loo xam ne dina am résultat bu positif ñu retirer plainte bi jàmm am ci réew mi jàmm am ci fépp